non match bi satisfaction qu'est-ce kese là? parce que dafa am loo xam ne dañ ko war a wane saa su nekk ñun war ñu ñëw fii ba Tunisie di mënul nekk ndam foog ñu yóbbu ko Dakar te incha allah dinañ ko yóbbu bu neexee yàlla loolu moo taxoon ñuy doxalee nii incha allah. metti woon na trop moom trop sax parce que Roumanie équipe bu mag la équipe bu mag la mini foot moom daaw moom moo final woon mini foot moo tax équipe bu mag la te benn but la encaissé match de poule